Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. mbokki ma la yi maa nuyu di ziar di len dalal sen chaîne YouTube Ben martar tay dama fassiyene indi len bayre bayre biñ ko waxe nak ku nek warnako am ndax boy dundu ak ay nit ay gor ay jigen ay mak ay ndaw ak si lo meuna yengut ci si soxla nga si nit ñi nit ñi bëgg la te nit ñi buñ la bëggee rek dana tax li ngay yëngatu mën a barke dana tax li ngay yëngatu itam nga man si am ndam mo xam ngay def politique mo xam ngay commerce motax euh ñu ci gëna bari ci commerçant yi parfois yoyu mom mo leni jallé man xamna naa ñu ci bari ño xamné ma sha allah amna ñu ci jotté jëflante ci ñu may seetaan fi sax euh ma sha allah fim nekk ni alhamdullilah rabbil alamin ginnaw yàlla dal xamna ne dal mom mbir yi ci bari ñom def nañ ko fi am na yoo joxe naa ko sax wala amna yo xamné xam confié neen mako ma defal leen ko ñu gis ci ay résultats muy bayre bayre dafa bax ci doomu adama ak ci lo mëna yëngutu nak mo xam ngay businessman politique ngay def wàllu jaay ak jënd commerce ngay def affaire mannequin ak loo mën si def daal te soxla nit ñi bëgg la si dafa am solo dégg nga euh, incha allah moo tax tey naa leen si jox ay secret am na si yoo xam ne sax pour sa diggante yow ak sa jabar wala yow ak sa jëkkër wala yow ak ki nga bëgganteel mais loolu dafa am nu ñu koy liggéey soit si nit ki ay fu mu dëgg wala karawam wala yëreem wala yu demee noonu si loolu lañ ko te loolu dafa xaw a doy waar man dama leen wax toujours ne leen li ma leen wax naan leen soxla yi ngeen am mu ngeen ma ko wax taxul itam ku ma wax soxlaa ma fajal ko ko déedéet am na si ñoo xam ne ak loo mënti indi dama lay waxante yow dëgg am na yoo xam ne si ni su ma sama xol mayut na ma defal la ko duma la ko defal ndaxte bëgguma bàkkaar ak nu mu mënti demee bëgg naa lu leen neex trop waaye bàkkaar bëgguma ko bëgguma def luy lor benn doomi aadama nañ di dimbalante teg ko si dëgg ak ak yoon rek man ñàkkuma kersa am na ñu may woo naan da ngaa ñàkk kersa nangam nangam demewul noonu nit boo may wax fu la ak fayda rek wax ma loo xamante ni nii lu ma mën a dégg la dinaa si waxtaan ak yow boo ma wax loo ma mën a dégg nag moom du ma la wuyu waaw. kon tey naa leen jox benn secret wala sax ñaar bu ñett incha allah pour ngeen koy def dinañ leen jëriñ ci lu bari bari bari surtout ñu bëgg mbooloo ñu bëgg bayre jigéen ñu bëgg leen wala góor ñu bëgg leen seen liggéeyukaay wala ñi nekk ak ay nit daal bëgg ñu am si ñoom ay cofel inshallah rabbi dala la ko jox muy ay mbir yu yomb inshallah dina ñaan rek ngeen utiliser ko te bala ko utiliser ngeen ut ay kaaraange sen bop ut leen ay kaaraange kep ko xam ne mënu ko wala nga bëgg am bayre yu gëna mag wala sa digënté yak sa ki sa soxna wala sa borom kër wala ki nga bëggantel mën ngeen ma contacter dina xam nak lay dimbalenté ay yeen si côté bobu inshallah ci suratul euh, yusuf lañ koy jaarale ak isa janus la fatu si lolou lañ koy liggéey ak war a faxnaa ma kane ala ak allahumma salli ala sayyidina Muhammad yëpp ay liggéey yu ñu koy liggéey la pour si wàllu bayre ay yëkkatiku ak jëm si kaw ak itam ay rattaxal ay diggante wala yu demee noonu ndaxte Youssouf yéen ñëpp xam ngeen ko yonentu yàlla Youssouf nit ñu dañ ko bëggoon jigéen ñi góor ñi mu nekk dem ba nekkoon buur waaye nag def leen attention kaaraange bi moo si jot waaw mbir mi ni ngeen ko defee mooy surtout Youssouf ngeen di bind ba mu jeex waaye ay boo yegg da ngay bind sa tur mais sa tur bi da yaa ngi koy bind si Youssouf maanaam boo yeggee si premier aaya bi da ngay bind yusufa mais waaw bu njëkk bi si ngay bind yow sa tur waaw bu mujj bi nga bind sa turu euh, maanaam sant yi nga bëgg yëpp sant yoo xamante ni xam nga si réew mi nga nekk nga jël seen sant yëpp nga bind ko si deuxième faa maanaam waaw bi ngay bind sa tur ak mooy waaw ngeen gis noonu faa bi ngeen bind si maanaam sant dëkk bi nga nekk yëpp bu dee Sénégal fii ay Ndiaye Diop Thiam Biteye Niass Mbacké et cetera et ay si yooyu daal léegi nag aaya boo jot da nga koy defee kon ni ma la ko waxee yusufa rek ngay bind seen diggante aaye boo jot defal yusufa waaw bi def fa sa ak sa turu yaay bi def si sa turu sant yi wala sax nga def si euh, ki nga bëgg wala yu demee noonu soo paree kon na ko ba aaya bi jeex nu nga koy def aaya bi jeex def ko saafara def si juróom-ñaari parfum yoo xam ne amul alcool nga di ko sangoo dégg nga 14 jours wala 7 jours yaay xool beneen bi muy maa ngi fàtte sax moom si saafara boobu mu nga see def karaw karaw mën soit fekkee ne góor ñi nga bëgg ñu jublu la def si karaw góor bu dee jigéen ñi nga bëgg ñu jublu la def si karaw jigéen bu dee ñoom ñaar ñoom nga bëgg nag comme nga am business booy def euh, nga def si ñoom ñaar ñëpp seen karaw yi nga koy sangoo léegi izaa jaa nasrullaahi wal fathu boo leen xoolee izaa jaa nasrullaahi wal fathu wa ra'ayta n-naas yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan fasabbih bi hamdi bi boobu noonu mi mu hamdi bi ngay yaatal boobu noonu mi mu hamdi bi rek ngay yaatal mais nag laaxi bu njëkk ba Denga nga bo ngoy gis moy nasrullahi xaa boobu ngay yatal def sa tour denga nga sa tour astur ya nga eh, tej xaa boobu miim miimu bi ngay def turu ñi nga bëgg ñëpp sant yooyu yëpp nga bëgg ñu uy la nga def ñom seen sant yi beneen laaxi bi nek fi dini lahi bi nga def fa itam sa sa soxla nga tej lahi boobu non nga bind ko ba muy fois so pare nga def ko moom tamit saafara def ci karaw yo nonu bu dee karawu nga bëgg nga def ci karaw goor bu dee jigéen nga def ci karaw jigen bu dee ñaar nga def ci ñom ñaar ñëpp nga def ko ba muy juróom-ñaar ba su ma ne bind juróom-ñaar nga def wala 1111 yaay xool soo leen paree ngeen def ko saafara ngeen di ko sangoo incha allah su ko defee kooku noonu nga xam ne moo bëgg mbooloo moo bëgg bayre dégg nga na ànd ak wax naa leen ko bayre su àndut ak kaaraange prison moo si topp wala ay accident wala ay bon yu lay dal ndaxte secret bi moo am doole moo fort bàyyi leen ko xel kon nag incha allah euh, mi ngi noonu kon ni ma leen ko joxee. Euh, képp ku ñu si bëgg a woo nga jokkoo ñun ñu xool naka lañ def dimbalante si ak yéen si lu neex yàlla incha allah kon ñu ngi yem fii di leen jox di daje ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa